dinañ fexe ba jeunesse bi ñeer seeni leader dinañ fexe ba jeunesse bi ànd ak ñun ànd ak ñun ci jikko yu rafet ànd ak ñun ci koom ànd ak ñun ci lépp li nga xam ni moom mooy defar dinañ fexe ba euh, ànd ba Ziguinchor nekk ci jàmm ngeen baal ñu àq wa salaam jërë ngeen jëf.